asalaamaaleykum mbokku juddit yi tey nag boo leen ma gisee xam ni dañ leen indil euh, li nga xamante ni mooy concours tajwidu Quran bi nga xamante ni mooy jaar ci Africa set euh, ci weeru koor gi tey nag ma ñëw di leen indil ñi nga xamante ni ñooy suñu candidat yi nga xamante ni dañoo war a jongante euh, ci concours bu mag bi nga xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar muy deuxième édition bi di les kaari door Euh, fii nga xamante ni nag euh, fi ñu toll dañ leen di euh, présenter ñi nga xamante ni ñooy jongante ñi ñaar fukki xale ak juróom-ñaar ñoom lañ leen di jox seen tur pour koo xamante ni rek bëgg nga leen a jàppale nga nga nga jàppale leen ci dem ci suñu page yu YouTube di ngeen ko fa fekk seen i vidéo ngeen abonné ci page YouTube Africa 7 bi ba pare nag cliquer ci li nga xamante ni mooy j'aime bi ndax foofu kat dañ fay joxe ay point yoo xamante ni xale yi ku ci ëppale rek euh, di nga am ay point yoo xamante ni xëy na mën na la jariñ ci euh, durant concours bi yëpp ci njëkk nag euh, ci ci ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy concurrent yi ñu ngi koy wax Mouhamed Bachir Samb di numéro un Mouhamed Bachir Samb mooy numéro un numéro deux di Adama Djiba Diallo Adama Djiba Diallo mooy numéro deux Baye Dame Gueye di numéro trois numéro quatre di Zeynab Thiam Euh, numéro 5 di Abdoul Aziz Gueye numéro 6 di Mohamed 6 numéro 7 di Mohamed Dia numéro 8 di Balla 6 numéro 9 di Souleymane Bari numéro 10 di Mohamed euh, Moustapha Ndiaye numéro 11 di Mortala Wad numéro 12 di Adama Dia numéro 13 di Ismaïla Sow numéro 14 di Alioune Sy numéro 15 di Baye Mor Touré numéro 16 di Abdou Aziz Touré numéro 17 di Serigne Adi Touré numéro 18 euh, di Serigne euh, fas Touré numéro 19 di Lamine fay numéro 20 di Khadijatou Fall numéro 21 euh, di Mohamed Fall numéro 22 di Fatoumata Fall numéro 23 di Barham Kouta numéro 24 di Moustapha Ndiaye numéro 25 di Mouhamed Mbaye numéro 26 di Assane Diop numéro 27 di du Julde Diallo kon ñooñu la ñu am ci ay candidats yu war a jongante ci euh, li nga xamante ni moom mooy concours ren bi léegi di ngeen dégg xale yi jàng yi nga ñu neex yi nga xamante ni euh, dinañ ko jàng di jàng yu am solo bu ko defee euh, boo leen seetaanee rek mën ngeen dem ci sunu yu YouTube. Euh, fekk fa euh, vidéo yi ngeen jël vidéo bu ci nekk ki ngeen faral ngeen abonné ci page euh, ngeen abonné ci ci ci ci page bi ba pare nag daal di cliquer ci j'aime bi nga xamante ni def sa commentaire ndax loolu dana jouer ci li nga xamante ni mooy concours bi pour xale yu mën a jëm kanam. Bismillah الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه شديدا معشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين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 وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون الدين الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله innahum saa ma kaanu yacmaluun dalika bi annahum aamanu summa kafaruu fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستقيموا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء غفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون صدق الله العظيم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 تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي تقرم ما قل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قالوا فرض الله لكم تقلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه قديسا فلما نبأت به وأزهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعد فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم القبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عصى ربه إن طلحكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طاعبات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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira yawma yarawna al-malaa'ikata laa bushraa yawma'idhin lil-mujrimiina wa yaquuluuna hijran mahjuuraa وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفوراً عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله laa nuriidu minkum jazaan wala shukura inna naxaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira fawaqaahu allahu sharra zalika alyawmi walaqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaruu jannatan wa xariira متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها إك لا يرون فيها سمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تزليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضر واستبرق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 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه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 مثلهما وهو العلي العظيم ngeen dem ci sunu page YouTube euh, fekk fa euh, vidéo yi ngeen jël vidéo bu ci nekk ki ngeen faral ngeen abonné ci page euh, ngeen abonné ci ci ci ci page bi ba pare nag euh, daal di cliquer ci j'aime bi nga xamante ni def sa commentaire ndax loolu dana jouer ci li nga xamante ni mooy concours bi pour xale yu mën a jëm kanam donc tey loolu lañ leen indiloon muy euh, concurrent yi di leen ci xaar yéen ñëpp nag ku ci nekk ki nga faral nga mën ko nga mën koo supporter ba nga xamante ni dina am ndam ci concours bu mag bi nga xamante ne Africa 7 moom lay def